asalaamaaleykum mbokk internet yi di leen nuyu te di leen jaajafal bu baax di am contentement jano ak yéen chaque jour nee naa leen mbégte bi nag moo di leen indil di gën a fës ci bopp xibaar yi laataa may ñëw nag damay nuyu borom kër gi di ko jaajafal bu baax moom Pape Thialis Faye di am contentement ci moom may Babacar su ma fay rek daal di ñëw jukkil leen di gën a fës jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay ziar di leen nuyu bu baax a baax te moom da dem ba fees rek nga daal di toog ferenku laayu def sa abaaye bu noir bu baax macha allah bu ne muut yàlla si sa jàmm yàgg ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm wante ñu ngi ziar bu baax a baax tamit suñu mbokk yépp yi nga xamante ne bii saa bu ñu xëyee Leewtoo TV rek la ñuy seetaan ngir mën a am lépp luy information lu jëm ci wàllu làmp Assane Waala nuyu naa la. Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaar la ñoom pour indi leen di gën a fës ci yéenekaay yi. vendredi 30 avril 2021 Mbaye Babacar. ay fàttu woy boobu di naan ku ma doon laaj maa ngi ku ma doon seet maa ngi loolu loolu loolu dioo la woon Adja Kinde la Maam Bamba ak Youssouma jigéen lu ñu ko laaj loolu la def lu ñu ko laaj daal samp ndëndam naan ku ma doon laaj maa ngi ku ma doon seet maa ngi ba tax na Leewtoo point net atuma ah, réeroon kon feeñ na feeñ na ma nga ba mu xëyee xibaaree nañu ko record xibaar nañ ko waaye suñu làmb aussi ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk loolu la ñuy xibaaree Modou Lo Ama Baldé combat royal ba ñu régularisé fee CNG démb daal dinañ koy fixé le 25 décembre incha allah bay Babacar. kon mën nañoo wax ne aaya ba daanu na. ñi doon laaj dat dat bi nga xamante ne bii moom la ñaari mbër yooyu war a jàkkaarloo war a bëre Luc Nicolaï di aatu ma nga xamante ne bii moo réeroon feeñ na bi mu feeñee nag li mu wax. mooy combat royal boobu nga xam ne ñëpp ñi ngi ñu ngi koy xaar vingt cinq incha allah daañu bëri euh, suñu làmb bind na ci Leewtoo point net bind na ci waay wante record tamit kenn demul mu des Assane. dëgg la Mbaye Babacar démb la li di ko laay dem foofu ci arène nationale pour régulariser combat bi ginnaaw bi mu ko régulariser nag mu jàpp euh, cinq decembre pour mu nekk combat royal bi war a dox ci diggante Lac de Guiers euh, diggante Modou ak Ama Baldé ginnaaw loolu suñu laamu également revenir ci choc boobu nee na moom choc le choc royal fixé au 25 décembre 2021 euh, euh, Luc Nicolaï également ginnaaw bi ñu ko régularisé euh, àdduna ci journal suñu làmb nee ne dafa jox cadeau de Noël amateur lidi waaye également combat bi naan na ci def loo xam ne nii beneen promoteur du ko def si cinquante ans ci kanam record également ñëw na ci nee ne enfin l'acte Ama Baldé l'acte Modou Lo Ama Baldé euh, Luc Nicolaï euh, defar na ko nee na officialisé na combat bi le 25 décembre. bi kon daal kon daal Luc Nicolaï dig na ci amateurs yi la nga xamante ne bii fi ak 50 ans dootu doo duñ ko mës a gis ci làmb. loolu la wax wàllu ambiance wàllu organisation nee na daal lim leen di dégg. bu buñ ko gisee ba pare dinañ toogaa cinquante ans yoo xam ne nii beneen promoteur du ko def. kon événement bu mag lay doon. loolu tax li yàkkamtu ci dara nee nañ bu naree neex dañ koy baaral. Hmm. baaral ba mu baaral. togg bu naree neex booy togg da ngay baaral. c' est le promoteur des grands événements doomu Mbour géej ba. ca noonu nag ka yàkkamtee janoog Modou Lo di Ama Baldé moom mi ko woo ndaje premier ndaje lañ ko tuddee la 15 à Niané ci lu simple ba kii di lu ñu ko la di organiser mbay ba. gannaaw bi. ñëpp xam ne le 25 incha allah daa ñu bëree seen première daje nag war a am incha bu ci yàlla àndee le quinze mai assan foofu ca ñaan yi wante. Ama Baldé moom moo invité Modou foofu ci Niani. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi leen euh, joxee benn fas a face le 6 avril ba le passé ci Sen TV mu yàqu euh, njortu na ne Modou Lo ak Ama Baldé war na mën a daje euh, ci Nianing la quinze mais bii di ñëw li nag mébétu Ama Baldé la du Luc Nicolaï du Modou Lo Ama Baldé Luc day tëgg la quinze mais benn gala ci Nianing Ama Baldé Ama Baldé nee na dina fa teew te mi ngi invité Modou Lo mu teew fa comme ça ñu def seen premier ndaje. incha allah ca noonu nag journal suñu làmb ak record dañoo dellu si waat ci defet ba doomu Sénégal bi di Reug Reug daal di am fas nga xam ne mooy étranger ba mu mettre kaw daal di suñu ñëwaat Mbaye Babacar. gannaaw ba mu teglee ñetti victoire moom mii di Reug Reug nga xamante ne bii mooy représenté Sénégal ci wàllu MMA fële ca bitim réew dafa euh, signé li nga xamante ne bii nag mooy première défaite am kii di Grill Senko daan ko Assane ci combat ba nga xam ne wax dëgg yàlla ñu bëri jàppoon nañ ne rëg-rëg sax moo ciy jëlewaat ndam ndax dañoo dañoo tàmmal victoire dëgg la may Babacar ñëpp yaakaaroon na ne da ciy jëlee ndam waaye rëg-rëg mi ñu gis démb dafa mel ni nekkul woon en forme donc mu signé première défaite am euh, contre euh, bi biélorusse bi di Kirill Grisenko moom nag moo ko daanee ci KO wala moo ko gàñee ci KO KO technical KO noonu la ko journal suñu laam waxee nee na ci KO décidé par l'arbitre maanaam dafa jël coup boo xam ne nii gannaaw ko euh, kii record bi gannaaw coup sifflet bi la ko jëlee. Mm-hmm. donc daal njort ne peut-être mën na ci def euh, recours pour casser verdict boobu. Mm-hmm. ca noonu nag ginnaaw defet ba mu enregistré kii doomu Sénégal ba dina rek dina préparé def li nga xam ne mooy recours ndax dafa jàpp ne ku irrégulier lu ko waaju dóor ba tax mu ñàkk combat boobu mbay waaw Ndeye Mbacke dafa jàpp bi ñu ko bi ko bi ko bi ko di dóor fekk na cloche bi sonné ba noppi. Mm-hmm. Euh, bokk na ci li nga xamante ne bii moo tax mu war a dugal lii di recours Assane wane ni euh, verdict bi àndu ci tey àndu ci ëllëg. rëg-rëg moo xamle loolu nee na dina euh, déposer benn recours ci compte Instagram am la ko publier ñëpp jot ñi nee na daal coup bi mu jël coup irrégulier la te dina déposer recours pour case verdict boobu pour que prochainement au moins mu am revanche ak kii di Gris Séne ko pour ñu leeral combat bi. li ci kanam rawati ba rawati gër mbay Babacar dagga daanu la bu mel ne làmb ji daal dinañ sàjj bu baax a baax ne ko réel la ak Marley mobile 2 ak Boursine seen combat ba nag ñu ngi koy amale le 25 ba 25 juillet incha allah ay ca mu mel nii ni nga ko waxee sànq fi mu toll nii mën nañoo wax ne làmb ji mel na ni suppu kànja waaw euh, promoteur yëpp ku ci nekk yaa ngi xëccoo ngir am sa datu bopp ba nga xam ne ca nga war a tëgg sa événement mi ngi noonu loolu nga xamante ne bii ay combat yu neex la ay combat yu ñëpp di xaar la Assane di dox ci diggante na Marley Nekorel wante mobile 2 war cee jàkkaarloog Bour Sine. dëgg la Mbaye Babacar Jumbo euh, ñu gën ko xam euh, ci. rent DKR structure boobu mu jiitu ko démb nag mu ngi woon ci CNG pour régulariser combat yi nga xam ne tëggal na ko ginnaaw bi mu régulariser Nekorel Marley Mobile 2 ak euh, Boursine jàpp na combat boobu la le cinq juillet pour amal ko combat boobu nag ay ay journée boobu nag ay combat yu bëri lañ ci prévoir ndax euh, Nekorel dina fa daje ak Marley Mobile 2 Boursine Eumeu Sène Junior Kalmu Ndour waaye Pape Thiam 2 ak euh, Kolbu Zap également dinañ fa daje. mën na la bu neex. journée bu neex te bëri ay grand combat mënoon na ko def ay grand combat yu bëri mais daf leen daje def ko benn benn benn benn journée. Mhm. journée yooyu neex yi tey bëri grand combat mooy yii di ñëw Lac Rose amal neex Zarko Baye Mandione ak yeneen combat yi nga xam ne moo gét events moo ko taxawal jour boobu nag moo gét daal dinañu may sept grand combat Mbaye Babacar le 22 août incha allah. mu nar a andi juróom-ñaari grand combat combat bu ci nekk mënoon na nekk journée boppam Assane. Mhm. moo gét. borom na làmp yi tàkk le jeune milliardaire cey moo kenn du moom. dëgg la Mbaye Babacar moo def loolu le 22 la jàpp pour tëgg fa sept grands combats yëpp mu def ko ci benn journée sept grands combats yooyu mi ngi war a nekk ci diggante Lac Rose ak Amaneex Baye Mandione ak Zarko. Mm-hmm. Jordan ak Doomu Dangu Cobra 2 ak Bara Ndiaye Tonnerre ak Mobile 2. Alaaji Mbay Buuse Ketchup liiru jaan ak wulli loolu lépp ci même jour lay amee le 22 août moo gét tëggal war ko jox amateurs yi. moo gét daal moo mën ñëpp kenn du moom. <laughs> maa ko wax moo mën ñëpp. kon na làmb yi dàq ca noonu nag kii di waa Vox Arena ne ko moo gét balaa ngay ñëw dañuy daal di samp suñu ndënd le juin incha allah kii di franc. Tyson 2 Mama ak Garga ak yeneen combat yi nga xam ne Vox Arena ñoo ko taxawal jour boobu lay amee Mbaye ñoom tamit kenn demul ñu des waa Vox Arena ñoom nga xamante ne bii taxawal nañ journée bu neex incha allah war a am bu ci yàlla àndee le 9 juillet mu war a dox ci diggante euh, Franc ak Tyson de Assane mhm. ñaari mbër yooyu ay ay ay ay champion ndax ku ci nekk fànn ba nga nekk da ngaa sa bopp ba yeg si fi nga yegg si tey. dëgg la Mbaye Babacar di journée bu nar a neex la ndax Franc de 2 Mama Lamine ak Garga 2 nga boole leen ci même journée. Hmm. loolu tamit dina neex loolu Alioune Badara Diouf moom moo ko def mi nga xam ne ni moom moo jiite Vox Arena. Hmm. démb également la demoon ci CNG pour retenir date bii di 9 juin waaye nag li ci ñuul moom mooy am mercredi lay nekk lu tax mu choisir mercredi bi dafa dem hmm. si CNG ñu ne ko euh, samedi wala dimanche yëpp jël nañ ko fii ba le 15 donc amatul date bu des. looloo tax mu jël la 9 juin pour taxawal ci mm, combat bi nga xam ne war na dox ci Franc ak euh, Tyson 2 Mama Lamine mu war a également am Noiro Moustique Alliance Balde ak euh, Caatu Ngewal Fourière ak Baye Mañoon Junior ñi ñëpp war a daje donc le 9 euh, juin di bésu mercredi. incha allah. te noonu nag ginnaaw ba combat ya bari dat ya manqué li nga xam te ne mooy stade Iba Mar Diop dañ koy waaj a ubbil Mbaye muy solution ba nga xam ne mën na indi saafara. ci làmb ji combat yi bare na ba pare euh, date yi manqué na su ko defee kii mun nay tëgg fii kii di tëgg fii bu ñu ubbee Iba Mar dana nekk la nga xamante ne bi dana dimbale amateurs yi te Iba Mar tamit Assane dafa nekk place ba nga xam ne dafa neex a seetaane la. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw fan yi ñu génn ñu gisoon diggante promoteur yi ak CNG xamul woon neex trop. léegi nag Ndeye Ndiaye Tyson moo ci dox euh, ay dox dox jàmm ba dajale ñaari groupe yi démb donc promoteurs yi dem na démb CNG seeti waa CNG ñu waxtaan bi ñu ci waxtaanee pare nag def nañ benn proposition pour que ñu ubbi leen terrain euh, stade Iba Mar Diop ñu mën ci dalal seen i loolu nag waa CNG nee nañ di ko jox autorités maanaam Matar Ba mi nga xam ne nii moo jiite euh, wàllum sport mm. pour que ñu waxtaan ci xool nan la ñu ubbee Iba Mar pour que date yi bëri yëpp ñu man leen a amal ci saison bi incha allah waaw mun nekk lu am solo la nga xamante ne bii dana dana dana dana jàppale làmb ji. ca noonu nag obtention des dates caution 2 millions les promoteurs de lutte avec frappe divisé mu mel ni Papa Abdou Fall ak gàngooram di daal di bañ di rasu ne duñ ko fay duñ ko ëllëg kee di jéey production ak ñoom àndal ñu ngi dem régulariser seen ay combat mbay Babacar. mu mel ni promoteurs yi dañoo xaaj. Mm-hmm. dañoo xaaj ñaari xaaj. te waroon na booloo nag doon benn loolu nekk seen force waroon na nekk seen arme waroon na nekk seen doole ñu téye ko di ko xeexe mais loolu amul dañoo xaaj ñaari xaaj ñii dañoo nangoo fay caution bi un million ñii lànk ba tëdd ci naaj wa asan na duñu fay. dëgg la Baye Babacar loolu fi seetlu bu ànd ak Abdou Fall ne ñoom duñ fay caution bi ndax arrangé wu leen loolu nag ñoom ñooy association nationale des promoteurs de lutte du Sénégal ñoom la ñoom Pape Abdou Fall ñoom euh, Fallou njaay ak euh, ni ñoom nee na duñ fay production bi ñoom bu ñu bañee ñii nga xam ne nii ñoom ñooy les promoteurs authentiques nga xam ne moom Mamadou Dieye seen ñoom ñoo ko moom moo ko jiite ñun moom nangu na depuis semaine bi yëpp euh, journée yi nga fi gis ñuy taxaw yëpp ñoom ñoo ko taxawal ñoom nangu nañu fay euh, caution boobu pour tëgg seen combat kon ñu seetlu ne promoteurs yi lutte avec Fra bi seen biir ñoom dañoo diviser wu. nañu jéem a daje waxtaan nag ndax loolu bokk na ci li nga xamante ne bii mooy avance lamb te journal sax mu ngi xam ne nag loolu ba mu amee rek kii Pape Abdou Fall ak xaritam yi ñoo ci perdant yu mag a mag yi hmm. ndax fañ toogee di bañ ñii ñu ngi jël dat yëpp ñoom giiroo nañ dat yu baax yi yëpp boo yeexee ñoom seeni làmb déwén la jëm wala ñu tëgg ko ci ay jour ouvrable mu ngi noonu nag di leen fàttali ba léegi samedi bi ñu jëm di suba insha allah jeunes amateurs yi ñu ngi amal li nga xam ne mooy ndogu fee ca kër seen président Mbaye Babacar waaw ki nga xamante ne bii moo leen jiite moom moo fas yéene amal loolu ñu initier ci nag lu am solo Assane fas yéene cee dimbale ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ndongo daar yi nga xam ne seen i wayjur nekk ñu ci dëkk bi ñu fas yéene leen cee jox ay doo wante fas yéene faa togg ay ndogu séddale ko jox ko askan bi. dëgg la Mbaye Babacar non seulement war nañ fa teral walla jox ay cadeau taalibe yi euh, waaye également dinañ fa def ay ñaan ñi nga xam ne ni ñoom ñoo génn àdduna ay de Coran ak euh, ay prières loolu la ñu nar a jagleel Balla Gaye 1 mi nga xam ne ni dëddu na ak euh, Boy Bambara Duutu euh, Seck ak Mor Fadam ñi ñu génn àdduna daal ñoom fas yéene nañ suba incha allah euh, wàcce leen ay kaamel pour yàlla jéggal leen seen i bàkkaar xaaral leen ci aljanna yu gën a kawe. jël na date bi nga xam te ne mooy 14 août incha allah nar cee taxawal combat professeur Mané ak Sandiambour Mbaye Babacar. professeur Mané Sandiambour Ousin production di pro di promoteur ba nga xamante ne bii mën nañu wax ne xale la ci làmb ji mais fa mu teg ba tam sore na Assane. Mhm. incha allah la 14 août mu ànd ñu journée bu mag. dëgg la Mbaye Babacar Ousin également démb mi ngi woon CNG. lu mu fa wuti woon moom mooy régulariser combat bi nga xam ne tëgg na ko te mu war a dox ci diggante professeur ma professeur Mané ak Sandiambour euh, combat bi nag régulariser na ko te mi ngi prévoir euh, journée 14 août pour tëgg combat boobu pour wax rek ne promoteurs yi ñu ngi dem di jël ko euh, date yi ma Babacar. waaw ñu ngi jël date yu baax yi de. ca loolu nag kii di Iba Kane suñu làmb ñu ngi koy jaale bu baax daa perte daa ñàkk magam démb mbay Babacar. waaw moom Iba Kane di suñu naataangoo di ka nga xamante ne bii macha allah xalimaam dafa ñëw ci wàllu bind ci wàllu làmb su bindee rek ñu bëri dañ koy apprécier ñu bëri dañ koy d'accordal euh, démb nag magam bu jigéen génn àdduna ñu koy ñaanal suñu boroom yërëm ko te jéggal ko ci turu si euh, sama kàddu mm-hmm. Leewtoo point Leewtoo production ak Leewtoo TV yëpp ñu ngi koy jaale di ko masawu dëgg la Mbaye Babacar Ibakan moo ma njëkk a jox euh, texte ne ma bindal ci làmb mm-hmm. pour dire que ne moo ma formé démb nag mu ñàkk benn magam bu jigéen bu tudd Oumou Lamine Kane mercredi d'ailleurs la la décédé ñu yóbbu ko ci këram gu mujj démb foofu ci yoon Yoff di ko ñaanal yàlla xaare ko aljana également di jaale Ibakan di ko encourager euh, bu baax ci naxar yu mu nekk incha allah koy jaale bu baax Ibakan borom suñu làmb sama papa jooju nag aussi di diggaale ñaan yàlla yàlla yërëm ko te saraxam yàgg ci seen loxo ci noonu la ñuy tàggatoo rek loolu moo nekkoon di gën a fas ci bopp xibaar yi mbay looy tàggatoo rek. xanaa jaajëfal ñëpp ñaanal leen jàmm ak salaam di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm di jaajëfal bu baax a baax sama waa dëkk njaareem di la ñaanal jàmm ak salaam. Assane Waalo waaw ah, Ndeye Mbacke di la remercier di remercier Mbaye Babacar di remercier waa Linguère Yacine Fall équipe TV yëpp leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. moom jamais nga fàtte ko. doo remercier Bamba sax wala. Yacine Waalo Waalo. <laughs> Yacine dafa abonné. <laughs> noonu la def fa la ñuy jaaree daal tàggatoo ak yéen leen jox dig daje ëllëg balaa loolu la damay gërëm sama caméraman bi Mansour Fall sama lonko bi. démb moom am nañ gan bu rëy rëy muy liiru liiru kontaan nañ ci yow lool lool lool. dégg naa dóor na la dóor yu métti. def na lu nekk kooku noonu mu ngi noonu bàmba kontaan naa ci yow lool man su baax su wax nga may yàqal waaye tamit nag kontaan naa ci yow ajaar na fi jaay maa ngi lay bëgg bu baax sama yaay jooju noonu matu ayda kontaan naa ci yéen di leen jox di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.